Jenenge Teolu, Sensan, Rumi Venkat TV. Kalma benan, uy kalma benan. Kalma benan. To, to. Kalma wendia mai. Wendia mai. I hear okay. ngonda koye jolde e awa bonare pat mu jolduma fat fat e dibe fof bal sa telini baltugel ta ben he ngabe ngabe dora umda ngaban an an mboro e jaggudem bye bye au revoir à demain ya. ngapi ngap ya pus ga eh ya betul les beru betul les rau beru jodoh pon aja vivo ya ya kumit aganyu bi bi bubla pelo tamal galimu me nyanyi kok mah yo iya. fan me anda bakasam bi gade les monon wa bila an me anda bakasam alaikum ah ah waaw Ini soose ay papa ñu ngi ñëw fekk ñu ngi fee di jaay ay ay ay kii ay gerte gerte gi ñor na voilà ñu ñëwoon fi tey di présenté leen bi nga xamante ni mooy bulletin wu président Diomaye président Ousmane moom mooy tête bi ñuy ñaan na gis bi nu mu demee ren joxe nañ engrais bu doy ak jiw bu doy ñuy ñaan yàlla ñu jënd gerte gi bu ñoree programme bi nga xam ne tey nañ ko muy projet passé lancé nañ ko bari ñëw présenté ko askan yaakaar naa ne ñëpp gis nañ euh, niñ ko lancé léegi nag dañoo soxla majorité assemblée nationale ñuy ñaan papa yi ñu wax soxna yi jëli seen i carte yi nga xam ne déposé woon nañ ko te jotuñ ci woon li woon woon na injustice jeex na si réew mi jaay la doole ëpp ëpp la doole dugal la si kaso bi jeex na si réew mi ah, politicien buy balbal lu jeex na si réew mi loolu yëpp buumu jaam gi yéen a ko tekki léegi nag li nga xam ne ñun moom la ñuy bëgg mooy lépp loo xamante ni réew mi moo ko moom ñu delloo ko doomu réew mi président Diomaye Faye doomu baykat la doomu sàmmkat la président Ousmane Sonko noonu daa di ngeen dégg ñu tuumaal naan bu ñu jëlee réew mi gàmmu dootul am màggal dootul am daan ñu ko tuumaal daa ngeen dégg ñu ñu tuumaal naa ñu ay robel ngeen daa ngeen dégg ñu ñu tuumaal naa ñu ay terroriste ngeen te loolu yëpp dara bi ci dëgg tey réew mi jël nañ ko daan nañ ñu wax sax naan ñu réew mi bu ngeen ko jëlee pale bi Ziguinchor ngeen koy yóbbu loolu yëpp nag ay naxe la woon ak i fen gis nañ ne tey sa jël nañ réew mi ne kaay leen li ñëpp bokk ñëpp jot yemu muj ñu woote ne jub jubal jubbanti jub jubal jubbanti boobu nag dafa nekk lu am solo mooy dootuñ fal benn dëkk bi xaw ma kan lañ tànn mu nekk seen dipite waaye muy député muy monsieur le maire dootuñ séddale dara mu jël ci baykat yi ay préfet yooyu di ko séddoo di bàyyi yenn baykat yi lépp dañ koy teg si yoon le président si projet boobu mu ne deux mille cinquante am na ay yàqkat ak ay naxakat yuy wër dëkk bi naan Sonko nee na deux mille cinquante la Sénégal di baax déedéet demeewul noonu dafa mel ni ngay tabax sa kër nga teg fondement teg kuule teg premier étage deuxième étage nga peinture at mu nekk ak fi ngay toll loolu nag nit moo koy xam ndax comme ni ma joxe exemple ni ma joxe exemple si ni ñu doon naxee li ñu doon a borom xel léegi gis ngeen barki démb ñu ngi lancé suñu campagne man maa ngi jógee koo Amérique maa ngi tudd Cheikh Anne li ma indi fii mooy responsabilité bi réew mi am moo fi indi du ma politicien sama oto Sonko joxut ma ko sama essence Sonko joxut ma ko door a suwaa la ñuy wax maanaam yow nga bëgg sa réew dëkk ba ma nekk di Amérique dañuy jàngal xale bi sa école ba nekkoon lu yàlla bind ñoom ñoo la gën moo tax xale bi fu mu dem si adduna bi boo ko teralee day jàpp ne américain ya ko teral ndax loolu ñoom def nañ ko si seen bopp réew si seen doomu réew yi tey man maa ngi nii américain laa si këyit dëkk bii dëkk bu ma dugg waa Amérique waa Amérique yónnee ma këyit euh, yónnee ma message sama téléphone ne ma ndax yaa ngi jàmm foofu sa kaw la nga nga nekk loolu mooy patriotisme moo tax ma jël sama moo tax ma jël sama ah, sama sama sama doole saalum saalum laa nag sama baay dëkk fii ma juddoo fi am naa fi fukki hectare di ko bay si àll bi fii kon fii laa bokk léegi nag ñoom dafa am lu ñuy toujours dañuy naan politiciens yi dañ naan nañ dem nax Saalum Saalum yi ay dof lañ buñ ñëwee ñu ne ñu xool kenn si ñun est-ce que moo wax leen benn affaire xam ngeen premier ministre yi Sénégal ma sax am yëpp Saalum gi lañ dëkk. defuñ fi dara. dara seen bopp rek. seen non mbul tudd tur sax. waaye comme que ñu ñëw ay mbokk lañ Sénégal la ñu Sénégal la ñu bokk Sénégal la ñu bokk waaw ñun ñëpp ay mbokk lañ léegi nag ñun li ñu daan naxee mooy nit ñi daan naxee leen rek li déglu leen rek ñun ñëpp ay mbokk lañ waaye li ñu daan naxee mooy ñun ay comme ñun ay dof lañ ñu jàppee bu ñëwee jël suñu yaay yi ak suñu papa yi dugal leen si ay seret teg leen si ko ay oto jox leen ay 2000 ay 3000 ma ne loolu jeex na ndax yeewu nañ. xale yi ñoo leen yee te yeewu nañu xaalis boobu ñu leen naan jox di leen dugal si ay seret xaalis bi nga xamante ni moom na la taximaan bi bu jëndee essence lañ koy dagg moom la béykat bi bu jëndee gerte lañ koy dagg muy ay impôt impôt yooyu lañ dajale jël ko di ko def si ay seret di ko di ko di ñëw di ñu ko séddalewaat di ñu cofal ñu leen di jàppale te defaluñ ñu dara léegi nag tey Ousmane Sonko wala Diomaye bu ñëwoon fii def fi tali wala mu yokk dund bi sañu fee ñëw naa leen maa leen defal lii parce que amu ko seen alal la bu ngeen ko dajee la jox ko ne ko defaral ñu kon bu defaree daa war a defar bu defarul dafa war sa defar politicien amul lu muy maye bay maye parce que li ñuy maye moomuñu ko léegi nag majorité assemblée nationale la ñu soxla na ngeen si jàpp yéen ñëpp ngeen woote leen ñu jox leen majorité buñ defee luñ defuwul ñu taxaw jàkkaarloo wàlle ak ñoom réew mi kenn dootuñu jàpp jaam réew mi kenn moomu ko ñoo ko moom Sénégal la tudd santul benn sant Sénégal la sant du si pël du réewum joola du réewum séeréer réewum Sénégal la ñoo ko bokk ma ne kon maa ngi leen ñaan ngeen am patriotisme su papa yi ngeen jëli carte yi ngeen wax yaay booy yi jëli carte yi loolu ñooñu moo ñu fi andi woon asalaamaaleykum wa lii mooy bulletin bu baax asalaamaaleykum. waaw